Sofraco nag moo mel noonu Sofraco ñoo amul dend ci seenu dëkkandoo su ma wootee ñëpp jóg jama jóg mais nga xam ne sax moom dama ko man rek di ko door fu ma toll sax su ma wootee sax mu ñëw mu te ku ne xam ne ciment la day tooy benn yoon na ba noppi waaye nag comme maa ngi koy xëcc ko joxe muy kontaan ci naxtaan ak moom ci laa Badara Samb bii toog lépp luy élection fi ñu nii moo ko jiitu ci Thiès Ouest moom lañ teg lépp ci loxo Cheikh Kane ñi toog mooy coordonnateur bi ci Thiès gépp docteur Ndiaye woote ne mi ci yoon yi mi ngi ñëw Amath Camara ngi ñëw tonton Mor Niang ak Thierno Alassane waaye ñun dañoo xam ne 15 points yi nga xam ne ñoom ñëpp moo leen ñor ñorandoo ñun ñëpp. bu ñu toogee di xaar koo xam ne day ñafal ñamal kii ñamal kii ñamal kii mën naa am lu guddee loolu moo tax ñu ne ñoo ngi koy commandé. Adja Ndeye Fall. waaw waaw honorable député. waaw sama waa jooju nga xam ne. dëkk ci dëkk bi def lu foo dem ne Ndeye Fall yokk na ci sa bopp ci say point tuuti ci suba rek la ma gis. janaan ne ba ne foo loo xew la ma ne ko nanga mu ne woo ma waaye dinaa ñëw kon maa ngi koy gërëm di gërëm. ñi nga xamna nak nag ñoo waral mbir mi muy jolof jolof banu yalla bolé ñun ñepp di juddoo fam nu juddoo ba pare yàlla indi ñu dajewaat Cees gii su ma ñëwoon fekk ngeen di def lu ñaaw wala yeen ngeen di ma xam ci lu ñaaw duñ mëna a waxe da ngeen di ñëw daal seen doole di jëflante ci bok di wax lu baax di ko def wóolu seen ñak ba tax na lu dagg lu ne morom ma la ñu jolof ga dëkk xamante wuñu fa suñuy bokk fa xamante mais ñun boo ne doomi diw doomi diw rek ànd bi day neex moo war a suñu ànd bi kon jërë ngeen jëf lii ñu woote tey nag ku waxul wii rek dangay nelaw wala ñu daal jàmm jël daal ndax na yu nekk ci dëkk bi di ganaar yu gàddu xamuñ seen ndey luñ nekk tànk bu la ñu koy toog kon waa njëm gaas na xam nga yëguñu dara ñoom ñooñu bu leen neexee toog seen ànd xam ne ñii seen ndey seen condition métti na Macky xam ko ne man kat mënuma lépp waaye dinaa jéem lu ma mën jël pour xam ne yaa di ko jox seen ndey ñu ko jël surtout ñoom yëguñu ko ñooy taxaw ci àggal yi naan noonu waaye nag Macky mi la dimbali ak yeneen yu bari yoo xam ne su ma nekkee di ko jéem a toj ñi jéem a ñi bëgg a wax point bi sax duñu am lu ñu wax ndax ñun ñëpp a ko dundandoo Sénégal benn dëkk la rek lu fi neex ñun ñëpp a ko bokk noonu lu fi métti ñoo ko gisandoo kon wii bii ñu war a wote du lu neex Macky Sall la ñuy wër dañuy seet li nga xam ne lii moo baax ci réew mi baax ci suñu njaboot gii baax ci suñuy condition de vie moo tax ñun ñëpp ñu bëgg gindi nit ñi ñi réer ñi xamul ñu bëgg leen a wax ndax lu baax kenn bañ a ñàkk xam xamal fi war a nekk rek waaye lu baax kenn bañu ko kon loolu moo waral ñu woote ah mi ngi guddi te li ci ëpp importance du discours yi li ci ëpp importance mooy ku nekk xam 15 point yi ñi ci àll bi jax jaxal xel yi nit ñi teguñ ko fenn lu may perte bëgg a toogaate duñ toog ba mukk te malo def ñooñu jax jaxal bi def ci xolu nit moo tax ñu woote lii pour wax ak nit li ñu xamoon na yéen sax xam naa ne xam ngeen du ngeen ay jaay waaye li ngeen xamoon lañ bëgg a yokk. kon maa ngi leen di gërëm di leen sant di jox parole bi El Hadj Badara sa am suñu coordinateur ndax mooy suñu kilifa su paree su paree jox Adji Fall la koor moom itam mu wax ak i bokkam lépp ci point rek ndax du doy ndax kii fanaan a yàq il faut nga yendoo wax ak moom di defar yow. ñu ngi sant ñëpp waroon nanoo jaar ci turu ku nekk waaye comme. suñu frère Pathé Kébé tudd na leen yóbbaale na ma géew maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp lii nag su ma taxawee fii di wax ci coordination bi am na lu tax ndax suñu parti AFP Moustapha Niasse moom rekk képp moo jëkk yëkkati loxoom ne Macky Sall booba ak léegi wax ba mu ni Macky Sall la moom lay doxal ci biir moom lay doxal ci bitti pression harul dara Macky Macky képp la te it xam ngeen ne kilifa gu toll ni Moustapha Niass ñaari mbir am buñ ko Macky dàq koo jàng Macky maki ëpp ko xaalis te moo ko mag ëpp ko expérience kon su ko tànnee ne moom la moom la loolu moo waral cër bu ñu am ci Benno Bokk Yaakaar dañ koo mérité ndax sunu secrétaire général ginnaaw loolu li nga xam ni moom la ñuy wax te mu am solo

Macky dafa fekkoon réew mi ñu wate ni juróom-ñaari at lay président di am Macky def campagne ne juróom-ñaari at yooyu su ma faloo danaa ko wàññi def ko juróomi at yàlla mi dara tawul fal ko mu nammit juróomi at ya fu mu dem wax loolu kon mébét mi jàll na mu des nag lenn parce que Macky dañ koo woowoon ne ko kaay toog waat mu toog conseil constitutionnel toog mu waat ni dinaa jiite réew mi ci jàmm ak dal ak sutura ci juróom-ñaari at ñu takkal ko ab jàq mu wëlbatiku ni man de am na lu ma mi bët laaj waa conseil constitutionnel ne leen dama bëgg a wàññi mandat bi juróomi at ñu ni ko man nga ko waaye du ci bii parce que bii yaa toogoon ci askan wi waat juróom-ñaari at yi da koy àggale su àggale su àggee nag keneen ku fiy falu juróomi at ngay falu te ñaari yoon nga koy falu. mbooloo mi ñoo ngi nuyu ñëpp di balu ak ñëpp parce que guddi na ngeen jël seen temps ñëw toog depuis 15 heures nit ñaa ngi fi toog mënuma lim nag par benn parce que ñi fi jaar ñëpp lim nañ nuyoo mais dafa am lu ñu fi indi muy waxtaan te waxtaan dañ ko wax pour képp ku ñëw ca waxtaan wa jóge fa am loo yóbbu lu dugg ci sa biir bopp ndax dañu dëkk ci dëkk boo xam ne démocratie lañu wax ñu ne lan mooy démocratie yéen ñëpp peut-être am na lu ngeen ci xam ndax kenn ci yéen ñàkkut dugg école ku ci ne dem nga ba CM2 wala ba troisième ñun ñii ñëpp di fi daje démocratie mooy ñu nekk ci dëkk boo xam ne su doon ay buumi njaam la ñu ne dagg nañ ko ku nekk war ngaa mën a dund na nga bëgg dundee ci respect dëkk fa nga bëgg a dëkk ci respect am droit ya nga soxla yépp waaye nag ci respect ak ci kaw yoon ba ci xale bu ndaw bi nga xam ne day nàmp mbaa mu am juróom-ñaari at dañ ko réserver ay droit ne war na dem école war na feebar faju war na lekk ba suur war na tëdd war na am sécurité kon démocratie am na définition yu bare nu waay neex définiree ko waaye ñun ñépp ci benn point rek dañuy ñuy jubali mooy liberté ci yoon ci bañ a tooñ kenn ci respect bu mat sëkk démocratie boobu nag dafa am lu koy tënk mooy li ñuy wax la constitution démocratie du yemb génération bu ñëw day am lu mu doon dund yàgg na te mu bir ko ne lii su ma ko dugaloon ci sama constitution dina neexal sama nekkin dina oyofal sama dundin ay génération di ko dund di ko constaté ba yegsi ñu ne kon loolu comme démocratie du yemb lii ñu waroon a dund te dund ñu ko te nekkut ci constitution nañ ko jéem a jël dugal ko ci biir mu gën a neexal su nekk loolu nag fi lañu ñu toll nañ ne yu bare manqué woon te yooyu ñu manqué day dëgëral suñu démocratie renforcer son constitution neexal suñu nekk loolu nak ken mënu ko jël rek dugal ko num la nexé. da nga wara am waxtan wo def Waxtan wo mo dooroon li. pendant un an nit ku tedd Amadou Mahtar Mbow wo ay niti niti nit dugg ci fepp ci Sénégal jël avis ñépp waxtan ak ñom tënk ko né président de la république li la lii la askan wi soxla pour seen dundin gën a neex kooka saytu ko tànn ci fukki point ak juróom ne fukk yi ak juróom suñ ko dugalee ci suñ constitution dana neexal suñ ànd dana neexal suñ dundin dana suqali suñu askan fukki point yooyu ak juróom kenn mënu ko dugal noonu dañu laaj askan wi nga xam ne ñoom la war a jëriñ ndax d'accord ngeen ci wala d'accord leen ci ñu dugal ko ci wala déet loolu nag doo jaar fenn lu dul ci référendum bii ñu dëpp le vingt fukki point yooyu yépp am solo parce que yépp day renforcer suñ démocratie mais man ñeent neex na ma ci ku ci nekk ku ko liir ku nekk dina am la la ca gën a neex mais man li ma ci gën a neex mooy euh, collectivité locale ñu dooleel dafa mel ni comme pyramide ki ci kaw mënul nekk ci kaw xam sama kër gee ca dolli ca lingeer lan moo koy doxal mënu ko ña dëkk ca foofa di jànkoonteeg problème mu ndox di jànkoonteeg problème mu jur gi di jànkoonteeg problème mu sécheresse jigéen ña amuñu financement amuñu formation. ku jàpp sa jikko la la jàpp. dëgg la. boo dajeeg man li ngay wax mooy man Ndeye Fall nan laay def waa Jolof ñii ñoo baax waa Sopraco. de wëlbati ko sopp la de wax naa ko daal. tey nag moo tax ma waxaat ko rek. te dañuy wax ne. lu nit wax dëgg la. te li may wax man dama koy wax te yàlla rek a tax. ndax nag booy fanaan nag nit ba bu xëyee si war ngaa xam ne dina sa gonto wala nga xëyee. ah di gërëm ñi fi intervenir yëpp waaye sama doom. macha allah yéen de dalal ngeen suñu xel won ngeen ni ne suba du ngeen dese puso bi mu réer ba dara yàgg ba dara tënkoon ngeen ko mënoon naa da ngeen a baax rek dama jox kat waaye man it ma tànn ci sama doom ay quelque rek yu ma neex man kat xam nga lan moo ma neex ci wax am lu ma jaaxal yal na nu yàlla musal ci koo xamante ne amul diine ku amul iman ku fàtte ni yàlla rek mooy joxe te man noo ji ci foofu rek laa ko tënk.

yàllaa ma jox réew mi joxoon ko Senghor joxoon ko ab Diouf joxoon ko Ablaye Wade mu ne yàlla jox ma ko te it nag du ci lenn yàlla moo moom mooy tànn ku ko nekk jox la nga ji mu ne kon man tam danaa fi bàyyi way wi way wi mooy lan fexe ba teg fi loo xam ne bu ëllëgee ñun ñëpp dinañ dund dund gu dal ku nekk xam na ni boo génnee ci réew mi fii rek ci Côte d'Ivoire ak feneen ak feneen xeexuñu fi ba ci wàllu FDK ak ak yow jullit nga catholique mu ne loolu bëgguma mukkum am Sénégal waaye mag yi guddal fan ku ko ku bëgg nga gudd fan ndax mu ne man waxum naa ne sénégalais yi ña ëpp ay jullit la waaye catholique yi dañ fee am droit ñi toog sax ne bokkuñu fenn bëgguñu gëmuñu yàlla sax dañoo am sañ-sañ dund mu ne man ñooñu nañu fexe ba muy jullit muy catholique ba muy païen ba ak loo mënti doon nañ la bàyyi ci la nga gëm ndax yàlla ci borom ma mënoon a taxat ne ba dara sàmm bi muy julliwul julliwul tey danu koy rey léegi bu neexoon ñun ñu julliwul timis lépp duñ ko fekk waaye ak a mën a muñ jubaal nañ bu ñu jógee dañuy julli beneen bi mu ne am warul nekk rek man Ndeye Fall Badara Samb kan ñoom samay doom ñoom ñooy politique ñoom rek ko war a laaj réew mi waa nekk nee sama góor gi femme bu neexee bañ a nekk dara bañ a bokk fenn nekk ca daaj waaye xëy na damaa bëgg réew mi te loolu est que am na fi déedéet donte am nga xam-xam donte mën nga koo yor tant que yeewoo woo ci parti politique ñu ne la amoo sañ-sañu laaj réew mi mu a man Macky Sall politicien bëgg naa ëllëg yow Youssou Ndour bi nga xam ne nee nga fekkee ma ci boole rek nga amuloo parti politique bu la neexee laajal am déet beneen bi mu ne yéen jigéen ñi ndeysaan yéen a yéen a am jom yéen a dooleel seen i góor yéen a dooleel seen i cànni mu ne dañ leen di abal suuf rek nag saa su ne dañu naan leen suuf si boo ko béyee ba at mi lii nga ko ci jox danga koy delloo mu ne loolu daf fiy jeex suuf soo soxla ñu jox la ko aarle la ko sàmm la ko nga ciy liggéey di ci dimbali sa njaboot di ci dimbali sa borom sa di ci dimbali say doom lii neexul que ñu mel ni ñoom Mati Ndiaye ñu ngi fii que na xelam dal Idi moomatul dëkk bi ku gis lii ku gis li Mati Ndiaye def ñu xam ni Idrissa set moomatul dëkk bi dëkk baa ngi koy rëcc et Thiès va relever le défi wuy parce ñun la président di xaar ci wuy bi ñun dong lay xaar ci wuy bi ku nekk na nga takku soo demee nga gën a ñaax nit ñi ñu jóg teel a woote ji balaa 17 heures ñun ñu commencé jubilé ñu daje suñu permanence jubilé ndoo fanaa ne jubilé jox Macky Sall ndax su ma dugal wax. mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen di leen euh, ñaax parce que man li ma ciy wax bu bare parce que honorable li mu fi wax ci comprendre ak sama doom ji li mu ci wax loolu doy na parce que loo ci wax rek dañ koy guddal ñu ngi leen di ñaan nag. parce que dafa guddi moo tax boo bëggee développé da ngay tere ñeneen ñi ñu mën a développé tu comprends léegi j'espère que yéen ñëpp li fi ñi fi jaar ñëpp li ñuy wax comprendre ngeen ko dañu bëgg ngeen wax wii ngeen a woote ji wii ñëpp a génne wallaay billaay dinañu génne sunu oto dugg ci kër gi ku ñëwul dinañ la jëli ñu yóbbu ñu génne te man gëm naa ne cité Sofaco HLM ñun ñëpp incha allah dinañu wote le 20 incha allah dañ koo vote massivement le soir du 20 massivement oui oui am ndam ñu am ndam merci. maa ngi di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sama yaay tan Mati di nuyu sama yaay honorable tan Ndeye Fall maa ngi lay nuyu di nuyu du nuyu sama nijaay Badara Samb nga xam ne sama xarit nijaay intime la moo tax du ma jaar sax si turam nijaay rek laa koy wax. du nuyu Tante Dieng Bakar ak ñi fi nekk ñëpp responsable yëpp ak Faté vraiment kontaan nañ lool Tante Mati di la féliciter ci mobilisation bii nga def. di wax ne li ma fi waroon wax lépp sama yaay wax nañ ko li ñuy wax rek mooy benn wax bi le 20 incha allah à partir de 18 nañ wii bi triompher dans tout le Sénégal. et dans tout le monde te incha allah sénégalais yëpp dinañ ko def ndax xam nañ ne li président wax ci constitution bi mooy suñu émergence mooy suñu développement te kenn bi gis sa njëriñ di ko wan ginnaaw ñëpp dinañ voté incha allah te ñëpp génn voté oui la 20 incha allah ñu am lu ñu bëgg comme ça li ñu bëgg ci dëkk bi muy émergence développement ñu am ko ci Sénégal. da ngeen am doom yi ngeen xam ne ay moodu moodu nañ nekk extérieur nga xam ne tey budget ak li nga xam ne day dugg ci Sénégal ci wàllum koom dañoo gis ne lu ci bari Modou Modou ñu ngi fi dugal ay milliards et milliards le président Macky Sall ne ñooñu war nañ leen delloo njukkal looloo tax ci ñi nga xam ne dañ leen war a représenté assemblée muy député yi ñooñu am nañ ci ñaar ñi nga xam ne dañ leen war a représenté ba di leen mën a fajal seeni soxla fii ci réew mi kooku président Macky Sall boog na ko ci point mu doon benn point. beneen bi moom mooy tey dañoo ne exécutif muy président Macky Sall wala président. ak i gouvernement beneen bi ñu ne législatif moom mooy député yi te ñu war leen utale ñu ne léegi képp kuy ministre képp kuy premier ministre assemblée nationale am na droit à chaque instant mu oo la sa biir liggéey càmbar la posé la ay question ba alal bi nga xamante ne nii population bi moo la ko dénk nga war koo saytu nga wax ñu fan na dugg ak naka la ak naka la demee ba ñu mën la évaluer kooku bokk na ci point yaakaar naa la loolu wii nañ koy voté. maa ngi nuyu

lekkul dara bàyyi lu fi ñëw ànd na ko ay bokkam de jolof jolof waaye nag teewul ànd na baa si ko lu fi ñëw dina ko ànd leeral ko ba mu leer fekk mu ko na seen lu fi ñëw dana ko leeral ak seen jolof ñun ñii c'est la même chose bu partagé dañuy toog mu leer lépp lekkul dara bàyyi ma am te dikk ni damay dugg ci allocution honorable député Ndeye Fall parce que vraiment li mu wax yëpp sa kër gi elle a tout expliqué c'est très clair euh, ak Fatou Ndogo sama xam ñu ngi sant bu baax Sofa koo waajur bi la incha allah incha allah parce que xam nga lu tax li ñu wax lépp daf ñoo engagé nekk loo xam ne suñu besoin donc ñun amuñu dara lu ci wax mooy mu bureau bi. ñu ngi remercier bu baax a baax euh, soxna Mati Fall ndaxte.

dafa jël kattanam boo xam ne dañ ko ko fal jox ko ko mun na ko da koy wàññi delloo ko askan su ne tey dañuy jox émigré ah, yi dañ leen di jox député te Sénégal xam nañ ne presque cinquante pour cent budget bi émigré yi la jóge nit ñooñu xel nanguwul ñu ne kenn du leen jox ku leen ku leen taxawal di leen eh, eh, xeexal seen i àq ak seen i yelleef ci assemblée su ne as proposition bi ci boppam. nga xam ne ku ñëpp daan ñaaxle dañuy daan dóor métital opposition dañ leen opposition dañ leen di tuutal di leen di néewal doole mu ne dama leen di may kàttan may leen doole président chef de l'opposition dañ koy wut te suñ ko amee ba pare dañ koy jox kàttan ak ay ndombo tànk yoo xamante ne day mel ni président assemblée nationale wala président conseil économique et social kooku mu ay développement yu mag assemblée nationale dañ koy mayaat doole ba nga xamante ne dañuy mën a saytu li gouvernement bi liggéey tey jii conseil constitutionnel bi nga xam ne ñu bëri dañ doon déngat naan saa yi ñu ko yóbbulee mbir mu ne dama on est incompétent lu ñu wax mu ne on incompétent tey jii yaatal nañ ay am yokk limam ba pare lim boobu nga xam ne président ko daan jël mu ne ne maa ko daan jël léegi damay jël loo xamante ne dama koy teg ci loxo président assemblée nationale kooku ku koy wax kañ bu waxul ne dafay bëgg daaneel nit ñi kooku daa bëgg yokk mbir mi waaye nag lenn dafay nekk kuy wut jëm ci lu baax dinañ la diingat yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu déparé ñii dañ daal ne waykat la ñii daal ne kii wérul waaye tey jii ba ñu demee mu yàgg xam nañ ne lii mu doon wax mooy li dëgg ndax loo xamee ne weesu na nit léegi mu def ñaari junni at mu koy weesu nit ñi di ko dégg di ko topp kon loolu dëgg la kon loolu nga xamante ne président Macky Sall teg na ko tamit loolu nit ñi suñu demee ba ci biir liir lii ne ci biir seet ko seetantal ko dinañ xam ne que lii mooy yokk jëmale askan bi kanam li nga xam ne Sénégal la koy jëmale kanam te moom président Macky Sall ci la nekk loolu la bëgg ku nekk xam ndaxte olof Ndiaye dafa ne balaa ngay toj nopp sàmba xam lu muy wëlis lii leen li ñu waxe xam leen la ca ne sotti xool ko ba mu rafet xool su leen nekkee li ngeen ci ne day yokk Sénégal ngeen def ko su fekkee yokkul Sénégal ngeen ne dañuy téye seen loxo waaye nag ne maa bañ maa bañ ndax lan góor jigéen te ween waxu fi waxu góor jigéen laïcité bi ñuy wax mi ngi fi depuis 1963 al sëñ Ababacar Si ma fi woon sëñ euh, euh, sëñ euh, Fallou mi ngi fi woon ay kilifa yoo xamante ñoom ñëpp ah seen suñ Mountaga Tall mi ngi fi woon ñoom ñëpp ñu ngi toog ko fekke ko te xeexuñu ko kon xam nga ne njëriñu Sénégal la parce que su doon leen loo xam ne da koy day nekk safaan bi ñoom duñ ko nangu te duñ ko seetaan góor jigéen buñ ko tuddati dañoo amul lu ñu wax rek te moo tax amuñu argument moo tax ñu indi loolu nan dañuy xeex diine defar Tiwaawan ni ko gis Tiwaawan ni mu mel rafet ak taare ku ko xeex defaree noonu suñu nee da ngay xeex diine man dina ma jaaxal koo xam ne da ngay def ilaa Touba defaraat Touba muy assainissement bi nga xam ne tey jii buñ doon doon gis Touba su daan tawee hmm. ay li wër jumaa jeeg yëpp da daan am déeg mel ni déeg tey ji kenn defar defar nañ ko ma kenn dootu ko waxati ndox bi ñu daan wax ci biir Touba presque léegi léegi def réglé nañ ko courant bi ñu ngi koy réglé loolu lépp koy dox ci biir këru diine yi te loolu mu def noonu da koy def ci këru diine yëpp barki démb rek am na ñoo xam ne ñëw nañ kër maam alaaji gii di ko seet ñu xool nañ koy defare kuy wax loolu ne day yaa ngi xeex diine kooku waxul dëgg looloo tax may wax ne ni ñëpp xam ñu jëm jàppale ñi nga xam ne ñoom la ñu war a jàppale di jàppale tamit di sant tamit suñu frère bi nga xamante ne mooy gane gaynde Linguère suñu frère bi nga xamante ne mooy Aly Guy ndaxte lenn dañ koy wax mu leer ndaxte lenn dañoo wax mu leer ba ñu soxlaa gis ñu kenn moom moo ñëw daal ne yéen kuy mbokk te nga xam ne koo xam ne ma am na naag jàmm damaa bëgg ngeen jàppale président Macky Sall jóg leen ñoom ñëpp jóg ànd ak ñun ba nga xam ne ñu am ci ndam li mu rëy li nga xam ne am nañ ko ci eh, élection locale yi noonu la ngeen jàppee woon laa bëgg ngeen jàppewaat nii mu gën a neex fa ñu jaar fa fu mu daan jaar ñu dóor am wi mu saf saf ñëpp doon wax woote bi ñu woote woon tey association des femmes Jolof Jolof ñoo ñëwoon tey wuy si ma fii ci Sofraco ma nekk président ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñëpp ci lañ bokk sama dëkkandoo yi nga xam ne ñoom ñëpp APR la ñoo bokk dajaloo fii di waxtaan doon leen ci bopp yi askan yi bi ñu bëgg a wote lan moo tax ñu war koo wote ndax nag soo ànd ak nit te loo loo gas ñu xëy ñu guddee ñu bëgg koo suul yow war a toog noppi dangaa war a ko ni expliqué ba keroog ya ñuy dégg ñu wote ba am nañu am ba pare soog a mën noppi ñu noppi noppi quartier boo dem ñu ngi def nii nag tey nag wàllu jolof jolof yi ak waa ñu mi Madara bu nekk loo xamoon ci wii bi ak nga ko ba ñëpp ko sax dèjà waaye mu demee ci seen ay koñ ñoom itam nag association Jolof Jolof bi dafa nekk nag certes pôle koñ bu ne am nañ fa association dañoo ba bu ñu yeggee nag kenn ku nekk wax ak say association wax ak say dëkkandoo ba ñëpp xam moo waral bi ñu ñëwee ñu woote ci ngoon ba léegi ñu ngi ba lépp xawoon lënt lënt rek ñu bëgg nag bu la bu la euh, vingt incha allah cinq heures rek ñun doy nañu pour ñu dem nag dégg wiiw bi dem jibli carte bu weex nañ ko teel dugal ci urne yi ñu ni ma ñuul carte ba weex loolu moo war loolu woote bi ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp bu leen négligé dara bu leen négligé kenn néeg bu ne dugg leen fa ku ngeen xam wax leen nag moom na ñëpp woote bi ndax njëriñ dong lañ ci